خفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa salaamun ala ibadihi alladina astafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayidi wa habibi abilqasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaat nañ tey jii ci jataayu gëstu yi ngeen tàmm am kàddu diine ji di ko amee fii ci 2STV yi tey jii kàddu gi ñëw di àggale kàddu gi nga xam ne moom lañu ñu mujjee jàngat te def ci ay jataay mooy xikma bi nga xam ne mooy fukkeelu xikma ak juróom benn mu nekk xikma bu gudd a gudd boo xam ne dafa am fukki questionment ay laaj yoo xam ne laaju weddi la laaj la yoo xam ne ki koy laaj dafa bëgg a dàq li muy laaj nga wax istifham istinkaar yi ñu tolloon ci juróom ñaari laaj yi ba tey ñu ñëw di àggale incha allahu ñetti laaj yi ci des ci xikma bi nga xam ne moo gën a gudd ci xikam yi waaye muy xikma bu ama am solo boo xam ne daanaka dafa tënk li ñuy tudd tawxiid wéetal yàlla tey ñu ngi toll ci questionnement bi mu wax ne kayfa yutasawaru ay yaxjibahu shay'un wa huwa aqrabu ilayka min kulli shay naka la sa xel mën nangoo am lu yiir te moom moo lépp naka la sa xel mën na nangoo am lu la ko yéey lu la ko làq te moom moo la gën a jege lépp ndax li lay làq dara day dox sa digganteeg loola te sa borom dara doxul sa digganteeg moom wax jooju borom bi tabaaraka wa taala wax na ko ay yooni yoon ci alquran suñ demee sóoratu qaaf aaya fukk ak juróom benn yàllaa ngi wax naan wa laqad xalaqna al insana wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi nee na maa bind nit te xam naa li nekk ci xelam lépp waaw xam naa li nekk ci xelam lépp ndax maa ko gën a jege buumu xolam gi maa ko gën a jege buumu xolom kon baatu jege borom bi jëfandikoo ko na ko suñu digganteeg moom ci aaya bii nekk ci sóoratu xaaf di aaya fukk ak juróom mu wax ba tey ci sóoratu xadiid aaye ñeent ne wa huwa maakum aynama kuntum ne moo ngi yéen nekk fu ngeen nekk moog yéen nekk ak fu ngeen mën a nekk moog yéen a ànd danañ ci dellusi mu wax ba tey ci suurat al mujaadala aaya juróom-ñaar maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa raabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalik wala akthar illa huwa maa maahum aynama kaanu nee amul amul amul ñenn ñuy wéet amul ñenn ñuy wéet di wax ci mbir walla di def dara lu dul maa leen moo xam ñett lañ buñ dee ñett maa ñeenteel buñ dee ñeent maa leen juróomeel buñ dee juróom maa juróom-benneel moo xam lu gën a tuuti ñett la walla lu ëpp juróom-benn ci gàttal daal amul fenn fu nit nekk ak moroomu nitam tàmbalee ko ci benn di wax ci mbir wala mu cay xalaat lu dul borom bi teewee na xalaat boobu te xam na lañ fay wax kon moom lépp suñu lépp la teewee mu des nag ñu euh, waxtaan ci mbiru jege ndax baatu jege ci ñun suñu déggiin ñun doomu aadama dafay tegtale distance dafay wane ne ki nga ki ki la jege walla nga jege ko am na distance bu dox seen diggante kon yow am nga limite moom itam am na limite ndax boo amul limite da ngay sës ci moom bu amul limite day sës ci yow kon foog espace dox seen diggante lu espace bi tuuti tuuti te xam nga borom bi tabaaraka wa taala espace tënk ko temps tënk ko kon suñu bëggee jëfandikoo baatu jege suñu diggante ak moom loolu mën naa jur ay jafe-jafe ci wàllu dëgg loolu tax na ay boromi xam-xam indi ci seen gisiin am ñu ne baat bi dañu koy jàppe rek ni ko borom bi waxee borom bi arab la wax arab yi la doon waxal xam na baatu jege lu muy tekk ci arab yi mu jëfandikoo ko kon bu waxee jege jege la ci jublu am ñu ne déedéet même bu fekkee jege la ci jublu te baatu jege boobu di ji di jur ci ñun ay melokaan yoo xam ne moom waru koo mel te mooy am limite am fum mu tàmbalee fu mu yem day jaadu ñu abal ko firi day jaadu ñu abal ko firi mooy li euh, ñu tuddee tawil ñu nekkoon baat bi nañ ko firee xam nañ ko firee xam te bañ koo firee jege ñu ne kon wax jii nekk wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi mooy li muy li ñu wax ne ñun ñoo ko gën a jege buumu xolam mooy ñoo ko gën a xam buumu xolam lañ koy firee fi mu waxee ne wa huwa maakum aynama kuntum moo ngi yéen a nekk fu ngeen mën a nekk nañ ko firee moom xam na fu ngeen mën a nekk xam na leen fu ngeen mën a nekk Ah. waawee loolu loolu tam est-ce que danañ ci génne baat yi bari yu mel nii borom bi di melal boppam ay melokaan yoo xam ne ñun dañu am nuñ ko dégge te suñu jéggee jël dégg boobu rek ñum doxale ko suñ digganteeg moom mu jural ñu ay jafe-jafe ndax su fekkee baatu jege dafay tekki ne ki ñu jege am na diggante bu dox suñu diggante moom ndax am na fu ñu yem moom mu yem fa lu mu néew néew am na distance bu dox suñu diggante moo tax ñu mën koo tuddee jege wala ñu tuddee ko sori te loolu dëppoowul ak nit ñu jàngalee yàlla dëppoowul ak matam gi matam gi moom yàlla ndax moom jamono tënku ko espace tënku ko ñu ne kon am ñu ne kon nañ ko firee xam ñu ne waaw mais xam itam est-ce que firee ko xam itam danañ ci génne ndax loolu tam nan lañ koy laye ndax borom bi tabaaraka wa taala jëfandikoo na baatu xam fam ko soxlaa kon su ñëwee foo xam ne leneen la fa soxla mu jëfandikoo fa beneen baat ñun ñu jël baatu xam jëfandikoo ko foofa loolu loolu ñu ngi tuumaal borom bi ne dafa dafa jëfandikoo baat fu mu ko soxlaawul ndax baat boo xam ne fa mu ko jëfandikoo baatu xam mën na ko fa faa wutu mu bàyyi baatu xam jël baatu baatu jege loolu duñu ko mën a lay surtout que mu jóge ci koo xam ne ku xam li muy def la ku xam lakk bi muy waxee la xam ne ñi moom làkk bi bu ñu waxee baat sangam lan lañ ci jubu kon jël baatu jege firee ko baatu xam duñ ci génne ndax borom bi tudd na baatu xam ci yeneen béréb yi mu ko soxla woon boo ñëwee ci suurat al anaam aaya ñett borom bi tabaraka wa taala na na wa huwa allahu fi samawati wa fi l ardi yaalamu sirrakum yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaalamu maa taksiboon gis nga fii bi mu soxlaa baatu xam-xam la jëfandikoo na yàlla moo nekk ci asamaan ak suuf xam na seen secret yi ak li ngeen nëbb xam na li ngeen nëbb xam li ngeen feeñal wa yaalamu maa boon xam na itam li ngeen di jëf kon borom bi bi mu soxlaa baatu xam jëfandikoo ne ko kon bu jëfandikoo beneen baat bu dul xam baat booba waruñ koo firee xam ndax ba mu soxlaa xam jëfandikoo ne xam kon bu sëf la joxe jëfandikoo beneen baat kon baat booba lam moom la ci jublu ci baat bi la jublu mu wax ci suuraat nam li ba tey aaya ñaar fukk ak juróom wa yaalamu maa tuxfuuna wa maa tuxlinoon xam na li ngeen di nëbbu xam na li ngeen feeñal ah kon nag il faut ñu seetaat beneen pexe il faut ñu seetaat beneen pexe ñu ne jafe-jafe bi am li ko jur jafe-jafe bi ñu am li ko jur mooy jàppee yàlla suñu bopp jàppee yàlla suñ bopp ba bu yàlla waxee kàddu ñu defee ne ku mel ni ñu na ko wax loolu c'est pas automatique c'est pas forcément yàlla mën naa wax jege waaye namuy muy jege suñu yoon nekku ci du forcé ñu xam ko waaw en tout cas du jege bu mel ni suñu bos bi ndax jege bu mel ni suñu bos bi jege ñi mata ñi mata di la kon moom jege la waaye jege bu nuuru yàlla la mu jeex problème bi jeex c'est pas difficile moo tax salaf bokk na ci salaf ñoo xam ne ñoom loolu moo leen ci génne woon mooy bu nee jege naa leen wax na dëgg jege nañu naka la ñu jegee suñ yoon nekku ci ndax nuñ koo xam ndax moom bu nee jege nañu jege bu ko nuru lay wax waxul jege bu ñu nuru ñun kon du ñu jul du ñu jël suñ jege gi di ko appliquer ci moom loolu lu ama ama am solo la lu jar bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la euh, lu lu neex dégg la moo tax boo ne bu ne wa huwa maakum aynama kuntum ñu ne waaw moom ay aynama kaan aynama kunna fu ñu nekk mi ngi fa nekk ñun nan la fa nekk ñun xamuñ ko du far force ñu xam ko door koo nangu ndax ñun mënuñoo xam léppam ndax moom moo xam suñu lépp waaye ñun xamuñ léppam ñun luñ xam ci moom moo bëgg ñu xam ko ci teg ku manqué mun ta xam ku mat kon loolu li muy tekki mooy effectivement sa boroom dara mënu koo yiir ndax dafa laa gën a jege lépp sa boroom dara mun la koo liir ndax moo la gën a jege lépp kon dara mun la ko yiir ah. Ah. loolu kon lu jar a bàyyi xel la mu des beneen iskaliya boo xam ne yàlla ci moom nee na laysa ka mislihi shay'un wax feneen wala yakun lahu kufun ahad kon nuróowul ak ñun kon comme nuróowul ak ñun ay yëfam du nuróog suñu yëf loolu kon lu jëma lu jee lu yomba xam la kon bu ñu jege bu waxee ne jege nañu jege googu du farfort su mu nuróog suñu jege gi ndax moom jege gi mel ni moom la ñu jege mën naa am ko wax ne ñun ci suñu xel yi la ñuy su jàppandikoo la ñuy jàpp lañuy ñuy dimbandikoo pour xam yàlla naam yàlla xel a koy xam waaye est-ce que xel moomu kon du dox suñ diggante xam ko est-ce que xel mi mënut a dox ñu ne déedéet ndax xel moom leer la xel leer la moo tax du ñu yiir yàlla yàlla moo jox xel mu nekk leer mu bokk ci moom moo tax mu mën koo xam moo tax yàlla xel a koy xam ndax xel foofa la bokk ci kaw la bokk ci moom la bokk wax nañ ko ay yoon yoon ñu bàyyi ko xel dañ wax ne ruux ak xel ak xol ak bakkan ak secret sir lenn li la lenn li la ay dimension la rek kon xol ak xel ak yépp ruux la te ruux moom ci yàlla la bokk yàlla moo ko wax léegi nag bu la yàlla joxee xel nag jox na la niitukaay boo xam ne moom mën na koo xam waaye nag bu la yàlla xañee xel amoon amuloo chance u xam ko moo tax mu wax soortu nóor wa man lam yaj'alillaahu lahu nooran fa maa lahu min nuur ku yàlla mayu leer mun loo am leer ndax mooy maye leer kon juróom ñetteelu questionnement bi mooy yàlla dara mun la ko yiir ndax moo la gën a jege lépp wax nañ lan mooy jegeeg yàlla gi kenn du ko déggee jegeeg doomu aadama yi mooy jege gi nga xam ne daf ak jegeem la jege gi gi nuroog moom la du suñu jege gi doo fa loolu jaru ci boo ci duggee doo ci génn moo tax jarul taawil baat bi jarul abal baat bi firi jaru ko ndax boo ko abalee firi beneen baat boo jël baat bi jëf baat boobu borom bi jëfandikoo ne ko ba mu ko soxlaa kon bi mu jëfandikoo baatu jege dafa soxla jege léegi nag problème bi la nar bi nga nar a am yow mooy nga nuróolee jegeem gi ak sa jege gi su boobaa doo ci génn kon li ngay def mooy yàlla nee na jege nañu moo ñu gën a jege wax na dëgg waaye du jege gi ñuy jegante ñun ndax jege boobu jege ñu matadi ñi la mu ñëw ci beneen questionnement bi muy juróom-ñeenteelu questionnement bi mooy kayfa yutasawaru ay yaxjibahu shay'un walaw laahu maa kaana wujudu kulli shay daanaka ak baa mu am na ci mu ne nan la ko dara mën a yire te moom bu amuloon dara du am waaw waaw walaw laahu ma kaana wujudu kulli shay bu amuloon dara du am kon lépp lu am dafa am gannaaw ak amam gi kon ma ne mënoon nañ koo xam lu jiitu amuk leneen li yi ñëw gannaawam kon xikma la boo xam ne wala boog questionnement la boo xam ne questionnement yi ko jiitu ci xikma bi junjoon nañ lu mel noonu mooy borom bi tabaaraka wa taala moo fi jiitu lépp te lépp lu fi am gannaaw moom moom moo ko fi indi kon lu ñëw gannaaw moom mënuñu koo nëbbu ndax lu fi ñëw gannaaw moom dañu ko da koo bind ngir mu won ñu ko yàlla nag du bind lu ñu koy won ba pare loola am pexey boppam yu koy tax mu xañ ñu ko mu yiir ñu ko mu làq ñu ko loolu mënta nekk kon yàlla dara mënuñu ko làq ndax moom moo fi jiitu lépp moo bind lépp wax nañ ko ba tey kenn mënta saxal yàllaak yàllaak kenn munta saxal ak yàlla ak fi nekk ndax mboolem li wër ak lum fi yàgg-yàgg soo seetloo rekk xool ci moom melow sosu boo seetantale bu baax rekk xam ne lii ku sosu moo ko mel te ku sosu ku nekk am na lu la sos te loolu munta dem ba abadan foog mu am fu mu jeexee xel munta nangu lool xel munta nangu ku nekk kala jiitoo la sos muy dem rek nekk benn chaîne bu dul dagg loolu xel munu ko nangu xel munta nangu tam mu nekk chaîne boo xam ne dafa dafa nekk cercle nga xam ne day mujj ki la sosoon yow yaa koy sosaat loolu xel munu ko nangu kon foog mu dakk kon sosante bi foog mu dakk fa mu dakkee nag fa mu dakkee foofu la liggéey bi nekk fa mu dakkee nag ka ko dak ko amal kooka moo yàlla te kooka moom kenn du ko sos ndax moom waajibul wujjóot lay doon bu boobaa loolu daal moo jar a takk su ko defee jàmm na ñooy adduna bi il faut ñu nangu ne xëyul xëy dafa dafa xëy xëy ñëw am fi nekk fi woon pour toujours àdduna bi ak ñàkk ko jiitu loolu la xel mën a nangu ndax fépp foo boyal sa xel ci la la wër rek da nga gis ne ak sosu feeñ na ci moom kon nag dafay ñàkkoon a nekk ba ci yàgg mu nekk fi comme dafay ñàkkoon a nekk ba mu yàgg mu nekk fi nag il faut am ku ko nekkal kooku ko nekkal nag moo tudd allahu jalla jalaalu te kooku itam munta nekk ñu bëri kenn dong la mën a doon wax dañ ko ba tàyyi yàlla munta bëri waaw parce que du sotti ndax yàlla bu fekkee mooy koo xam ne ku am iraada ku am na mel la ku am lu mu bëgg la ci li muy def te lu bëgg mën na koo amal waaw bu dee kooku mooy yàlla munta bëri ndax suñ bëree su seen bëggeel yi su seen bëgg-bëgg yi woroo su seen bëgg-bëgg yi waroo rek problème ñëw su boobaa ki munte réaliser bëgg-bëggam kooku matul yàlla kon fa muy mujj mooy kenn ki dong mooy nekk yàlla mooy ki nga xam ne moom mën naa réaliser bëgg-bëggam misaal ñi ngi nekk ci tàmbali nawet incha allah yàlla na yàlla barkeel nawet bi wàccee ndox mu bari mu barkeel ndox muy saxal gàncax te gàncax ga di meññi ndax lu ndox mi bari bari te saxalul gàncax du amaluñ solo torop lu ndox mi bari bari bu saxalee gàncax te gàncax gi meññut amaluñ solo moo tax yàlla na yàlla bari ndox mi waaye yàlla na nekk ndox mu saxal gàncax waaye gàncax googu yàlla na nekk gàncax guy meññ waaye xam nga jamono yi kon bët bu seet mën naa taw ñaari yàlla yi bu fi ñaari yàlla nekkoon bii ne tawal bii ne bul taw ñoom ñaar foog am ku ci wax dëgg am ku ci waxul dëgg ndax taw ak ñàkk taw mënuñu ànd mënuñu ànd bu boobaa nag ki wax dëgg kooku ay yàlla ki waxul dëgg kooku du yàlla kon yàlla mënut a nekk ñaar ba toujours benn yàlla moo mën a am te loolu jële suñ jàmm nekk ndax déggal kenn moo gën a yomb déggal mbooloo moo tax même waxuma sax ci wàllu àdduna mais entreprise sax bu bëree ay kilifa rek entreprise bi du dox entreprise sax bu bëree ay kilifa entreprise ba dox waaw na man mën naa bëri kilifa mais kilifa gu nekk na am kilifa te fa muy jeexee na nekk genn kilifa na am fu woy wi daanoo na am fu woy wi daanoo walla entreprise bi dox waaw wax naa fii ci defe naa bind bi passé borom bi misaal bi moo jox daraba laaw masalan rajulan fii shuraka mutashakisu yàlla di di misaal ñaari surga muy laaj ñaari surga yi ku ci ëpp jàmm surga bu bari ay patron te patron yi juboowuñ jubuñ patron yi juboowuñ jubuñ suraka mutashakisun bu ko kii nee toogal kii ne ko jógal bu ko kii nee doxal kii ne ko taxawal xam nga loolu si compliqué te kenn ku nekk am ci moom droit yàlla ne est-ce que kooku moo ëpp jàmm walla ki am genn kilifa gu jub goo xam ne du la digal lu dul loo man te lum mu la digal jàppale la ci kooku nag mooy jàll jalaalu wa azza kooku kenn rek la genn kilifa dong lañ am goo xam ne du ñu digal mukk luñ mënut te lu ñu digal jàppale ñu ci ndax ñu mënuñ dara en réalité kon nag boo ko fi bàyyee kilifa goo wutati ku dul moom yow yaay solal sa bopp ndax yaa am kilifa gu matul kilifa kilifa goo xam ne xamul sa jàmm jàmmam rek la xam kilifa goo xam ne jàmmam dong la lay wutloo du ci xoolaale sa jàmm kon questionnement bi tam bu leer la mooy borom bi tabaraka wa taala moo bind lépp moo amal lépp moo fi jiitu lépp moo tax lu fi am gannaaw gi moom la kon ñu bàyyi xel loolu questionnement bi mujj nag nga xam ne moo mujj ci questionnement yi nga xam ne moo aju ci xikma bu mag bi mooy fukkeelu xikma ak juróom benn moo amoon fukki laaj yoo xam ne góor yàlla gu mag gi daf ko laaj mooy ibnu ataay lay as-Sakandari questionnement bi ci mujj mooy fi mu wax yaa ajaban kayfa yazharu al wujudu fi ladami am kayfa yuthbitu alxaadis maa man man maa man lahu wasfu alqidami daanaka dafa ñëw nag tënk questionnement yépp ci benn laaj boo xam ne moo ndar képp laaj yi mu ne kéemtaan dëgg lii mooy kéemtaan dëgg yaa ajaban woo naa kéemtaan kayfa yazharu lwujudu fi l adami naka la yàlla di ame te ñàkk te ñàkk ku ñàkk jiitu naka la yàlla naka la ku ñàkk jiitu di nekk yàlla naka la ku ñàkk jiitu di nekk yàlla ku ñàkk jiitu mënut a nekk yàlla ndax ndax dafa sosu te ku sosa sosu matadi te ku matadi doo mën a matal kenn kon naka la parce que ñi bëgg a jàpp ne nature bi mooy yàlla loolu ñooñu lay tontu ñi jàpp ne naka jekk nii la ma sa nature bi dara jiitoo ko fi waaw nii la ma kon nature bi mooy yàlla mu ne nag naka lañuy ñuy jàppee yàlla koo xam ne ñàkk ku jiitu ndax ku ñàkk jiitu ku nekk soxla nga ku la amal nature bi mun te nekk yàlla nature bi mënut a nekk yàlla ndax ñàkk ko fi jiitu ñun ñëpp mboolem borom xam-xam yi gëstu ci wàllu nature bi xam nañ ne nature bi am na fu mu tàmbalee te foofu mu tàmbalee ñàkk ama ku jiitu loolu bépp scientifique bu sérieux xam nga loolu kon nature boobu mënut a ti yàlla mënut a nekkati yàlla moo tax mu ne jéem naa lool naka la nit di jàppe yàlla lu ñàkk lu lu ñàkk jiitu muy benn am kay kay fa yasbutul xaadisu maa wujudi man maa man lahu wasful xidam wala bokk nan la ñuy jàppee yàlla ku sosu nan la ñuy jàppee yàlla ku sosu ki fi jiitu ñëpp te ñee njiitoom gi amul fu mu tàmbalee nuñ koy jàppe ku sosu ñaar yëpp benn mënu ci nekk ah. kon wax ñi jeex na ci sosu ki ki ki ak ñàkk jiitu mënta nekk yàlla ndax képp ku ñàkk jiitu am nga soxla nga ku la amal kon nature bi du yàlla latif bi kon du yàlla képp ku yàlla mënuloo nekk lu sosu képp koo xam ne yàlla la mënuloo nekk lu sosu waaw foog nekk sa am gi nekk waajibul wujuudi mooy sa am gi nekk am gu amul fu mu tàmbalee ndax bu amee fu mu tàmbalee rek nga sosu te boo sosoo soxla ko la sosal ñu nekk fi rek yàlla ju nekk di soxla yàlla loolu wax rek nga mënut a nekk fee nekk rek yàlla ñu nekk di soxla yàlla ba kañ foog yàlla yi am fu mu yem loolu mooy li ibnu ataayilaay asakandari radiallahu taala anhu góor gu mag googu nitu yàlla gu rëy googu tënk ci xikma bii di xikma bu bu yaatu bu xóot bu naqaree dégg xanaa ko yàlla baaxe rek mosal la ci dara yàlla nañ yàlla baaxee mosal ñu ci dara ndax waxu nitu yàlla la wax ju wér la moo xam dégg nga ko moo xam dégguloo ko waaye lu wér la waaw ndax waxu waxu nitu yàlla waxu nitu yàlla waxu yàlla la waaw kon yàlla nañ yàlla may dégg ko ndax suñ ko déggee mu jàppale ñu ci nekk jullit wax naa ko ay yoon yoon nitu yàlla yi seen rôle ci suñu njullit gi seen rôle ci suñu njullit gi mooy xamal ñu priorité ndax loolu mën nañoo nekk ay jullit xam diine ji te duñ xam priorité te koo xam ne sa man-man dafa limité say soxla nekk illimité sa man-man limité sa soxla nekk illimité soo xamul priorité doo jigéen ndax fi mu ne nii benn solution doo nga am mooy xam li gën a jàmp parce que yow li nga war a def dafa bëri te li nga mën a def bëri li nga mën a def bëriwul su fekkee xamuloo li gën a jàmp da fay nar a nekk rek di def lu jàmput ba li jàmp la yàlla ñu ci musal loolu la alxuraan di jungi wala tamuutunna illa wa antum muslimun bu leen nangu dee fekk leen lu dul ngeen nekk ay julit kon ñun priorité ci ñun mooy nekk jullit ni ñuy nekk jullitam ay priorité ba loolu la nitu yàlla yi sas seen bopp gannaaw bu leen yàlla mayee jumtukaay bi ñu koy jàppale jullit yi moo tax euh, dégg seen wax chance la chance la yàlla nañ ko yàlla defal ndax ku la ëpp chance ki la ëpp chance mooy ki la ki la ëpp chance su xam priorité ki la gën a xam priorité moo la ëpp chance waaw ndax boo dee def li gën a jàmp rek daanaka li jàmpul boo ci àggee man koo def waaye boo njëkkee ci li jàmput doo def li jàmp te loolu mën naa yàq liggéey mën naa tuur yalwaan mën naa dem ba mën naa tax nga dem ba ba ca cëppaandaw la nga defee ne añ des ñu ne la añ amu fi ndax li tax li doon tax añ def am fi defuloo ko def nga lu nekk ba mu tes ba mu lees taal togg añ si compliqué kër gaa ngi fi añ xam nga li koy li koy joxe bu dee njóobeen yi foog nga wut ceeb wut dëwlin wut ndawal wut légumes yi ci ànd wut yooyu yëpp wut nga ko indi ci kër gi waaye taaluloo toggaañ taaluloo toggaañ taaluloo toggaañ de yaa ngi fi nekk di jël yeneen futilité bàyyi priorité ba añ jotee doo añ ndax dangaa deful priorité yàlla na yàlla musal ci réere priorité kon xikam yi am na solo am na solo lool yàlla nañ ko yàlla déggloo yàlla nañ ci yàlla wala boog yàlla nañ ci yàlla déggloo ndax dégg leen lépp yombut waaye yàlla nañ ci yàlla déggloo xikam yi ibnu ataay lay asakadari fatx bi ko yàlla defal néew na mu defal ko beneen nitu yàlla moo tax nitu yàlla yépp ko xam nitu yàlla yépp ko jàng ba ci suñu réew mi fi mbooleem suñ kilifa diine yi fi nekk tàmbalee ko ca kaw a kaw kaw ba agsi ci ñiñ mujj xam ñu nekk ay kilifa ñoom ñëpp jàng nañ ko wax nañ ci moom bind nañ ci moom jàngal nañ ko seen njabootam benn ñu jàngal leen ko yore téere bi wala ñu jàngal leen ko ci wax ji bët bu set nga dégg wax yoo xam ne nit yàlla ko wax ay njabootam fekk xikma la jël firi leen ko kon lu am solo la moo tax ñu wax ne mooy téere bi ëpp ñu ko sharxa ci àdduna bi téere bi ëpp ñu ko sharxa ci àdduna bi mooy alxikam alxataaya gannaaw alxuraan xëy na waaye loolu li ko jur mooy importance bu mu amoon parce que azhar agoon nañ foo xam ne ku dem ba sa jàng jeex danga nga koy sharxa ngir am fatu yàlla nañ yàlla defal fatu kon incha allah loolu lañu doon àggale questionnement yi ñu tàmbali woon boobaak léegi ñetti jataay la jataay bii jiitu jataay jataay tey bi dafa toppoon saison rëkk ci tabaski gi mënuñu woon teew moo tax dañoo mujjoon rediviser jataay yi mujj yi bii kon moo ñëw di mottali eh, mboolem questionnement yi aju ci eh, ma boobu di xikma fukk ak juróom-benn di mujjee fi ma waroon tàmbalee mooy ndokkeel jullit yépp ci tabaski gi ñu génn ñaan borom bi tabaaraka wa mu may ñu ñu fekke ko ay yoon yoon yàlla may ñu nangul ñu suñuy rendi nangul ñu suñuy tabaski nangul ñu suñu xeetu jaamu yàlla ñu def ci bisu tabaski ngir di ci wut yàlla na ko yàlla nangu yàlla na yàlla aar réew mi aar ñi dëkk réew mi yàlla na yàlla saxal jàmm ci réew mi yàlla na yàlla saxal naataange ci réew mi yàlla na yàlla jàppale képp kuy kilifa ci réew mi ba nga mat li nga doon yàlla na yàlla jàppale képp kuy kilifa ci réew mi ba nga mat li nga doon ba mën a taxawee li nga war a taxawee ndax su loolu amee rek jàmm na ñooy am réew moom kilifaa ko yor moo tax réew mu la gën mat kilifa moo la gën moo la gën a mat moo la ëpp jàmm moo lay gën a développé réew yi ci kilifa la ñuy rawante rawantewuñ ci population yi bët bu set ma dégg am ñuy wax naan euh, réew mu nekk nañu mel leneen yàlla di jox njiitlu ko mel loolu njuumte la wérut loolu njuumte la wérut bu dee loolu amul chance bu doon loolu yàlla du yónni ay yonent yàlla fekk na xeet wu yaafus ba tàyyi mu jël ci ñoom kenn defar ko ba mu mat mu sant ko mu matal leen loolu mooy kilifa donc kilifa day tane ñam jiite su dul loolu moom mu mu mu gën ñoo mu gën ñoo ma ma jël langage Sénégal mu gën ñoo liggéey ndey su fekkee moom biñ ko defee kilifa dañ koo déchargé ci soxlay boppam yi ne ko léegi dara waratu la looy lekk looy naan fooy tëdd looy sol yaag say soxna looy war lépp ñun ñoo la ko gàddul ndax nga am jotu féete ñu fi nga ñu war féete ndax nga am jotu mat ñu kilifa ba bu bu boo génnee di doxee soxla sax ñun dañuy taxaw ba nga jàll ngir bañ nga tardé nga wëlbati ko yemaateeg ñun mais su boobaa ñun am ñun ñu kon ñun kon nga gën ñoo liggéey ndey di ñuy liggéey di la jox te tanewoo ñu nga nekk bandi kom ñun loolu wérut kon yàlla na yàlla xiir suñu kilifa yi ñu mat ay kilifa yàlla na leen yàlla jàppale ci loolu ndax loolu mooy tax ñu am wéeruwaay loolu mooy tax suñu xel dal loolu mooy tax ñu aar ñu ci biir aar ñu ci biti loolu mooy tax ñu am jàmmi xalaat suñu bopp mën a liggéey dama wax am réew li ko li gën a gaaw ci développer ko mooy sécuriser nit ñi mooy na ñëpp nekk ci sécurité rek ñëpp liggéey mais bu fekkee kenn nekku ci sécurité kenn du ñemee liggéey bépp réew boo xam ne man ngaa aar ñi jubadi ci ñi jub loolu doy na sëkk bilaaw état état bi de man leen dong lay def mooy réew mi mandat bii ma yor bu soobee yàlla danaa aar ñi jub ci ñi jubadi boo aaree ñi jub ci ñi jubadi rek ñi jub liggéey réew mi réew mi li ko gàllankoor mooy ñi jub ñi jubadi dañ leen a tere liggéey misaal mooy toujours ma ko càmm gi càmm gi yàlla xam na ni bu ñu aaroon sàmmkat yi yarkati jur yi bu ñu leen aaroon ci sàcc yi tabaski Sénégal du ci demati Mali di ko wuti du demati Mauritanie di ko Sénégalais pare nañ te mën nañ ko mën nañoo yaral Sénégal xar yuñ tabaskee waaye dañ leen aarut ci ci ñu jubati aaruñ leen ci sàcc yi ku yar xar ren ba jaay des ko ñu sàcc say xar boo dof dofloo ñu rey la bu déwénee nga bàyyi kon yal na yàlla jàppale ci loolu yal nañ yàlla may ay kilifa yu mat ay kilifa su ko defee émission bi foofu laa koy yemale tey incha allah di ñaan liñ daan ñaan jataay bi ngeen toogoon di ko topp émission bi yàlla bu mu neen yàlla ko yàlla jàppe muy jataay jaamu yàlla lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla nañ yàlla xiir ci ñu mën koo jëfee njuum tey ñu ñaan borom bi mu jégal ñu ko su ko defee kër gi yàlla na fi yàlla dolli xéewal ak barke démb ñu ngi koy wax ci feetam bi mu doon feetu ñaar fukki atam biñ ko soseek léegi muy kër goo xam ne wax dëgg yàlla amal na njëriñ citoyen sénégalais yi amal na njëriñ jullitu sénégalais yi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla bu jëruñul ñëpp itam am na ñu bëri ñu njëriñ te loolu wax dëgg yàlla li ciy dellu ci njëriñ direct bu matériel ci kër gi bëriwut ndax émission diine yi ñoom yàlla dogal na sénégalais yi du ñu leen sponsorisé du leen donc bépp télé wala rajo bu am émission diine rek bëgg a jàppale jullit yi moo tax nga def ko waaye du comme moo ciy jëlee kon loolu ñu ngi ciy gërëm ñi saytu liggéey kër gi di leen ñaanal yàlla yokkute mooy euh, foofu ñu leen waroon féete te féetewu leen fa yàlla leen fa yàlla féete ba ñu am xéewal gu ëpp gi ñu waroon a séntu ci taxawu émission diine yi te kenn defu ko xale yi nekk teg bi di liggéey technique bi di liggéey bu rafet bi yàlla def leen mag te barkeel seen dund te may leen réussir seen projet émission bi àjjuma lay doon bu 11h jotee bu 10 jotee jàpp 11h ci rëcc mën nga koo dabu euh, dimanche mooy gannaaw suba ci 8 ci 7 ci suba maa ngi leen dig daje àjjuma jii di ñëw yàlla nañ ci egg te weesu ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. subhaanahu ya'lamu kulla maa xafi fajtanibil ismal jaliya wal xafi فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل